xalqul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 bàyyi ko ci kanam njaboot gi lu yàgg yàgg yàgg mu àggali liggéey bi ba jëf ci loo xam ne dana ngi leen di siyaare ci bis bi te di ci jiital kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo bokk teew ci jataay bi ànd ak ñoom julli gi ñu leen di ñaanal suñu borom suñu borom defal leen an najaax wa tawfiq ba liggéey bi ñu nekk di ci liggéeyal diine ji di ci liggéeyal yoon wi di ko liggéey ci njaboot bi ñu def ci loo xam ne dana kawe seen njort ñuy ànd ak yéen di sant sunu borom bu baax ci xéewalam yu dul jeex yi nga xam ne mësu jóg mukk ci di ñu ko baaxe te muy ji loo xam ne bu fekkoon ne lu mu jaay duñu am njëgam te doonut luñ mën a ñàkk kon ñu war fuñ toll di ko delloo njukkal te di ko ci sant bu baax cant googu nag ñu war a sant suñu borom dara gënu caa am solo ñuy dàkk li nga xam ne xam nañ ne ak bëggam la lu ñu mën ñu di ko ca def te bañ a jege fenn loo xam ne xam nañ ne lu ko neexul la wala lu muy tere la loolu kat mooy ngor ci noonu ndax xel jasa wal ixsaan illa al ixsaan njekk njekk njëkk rek moo koy fay te def loolu kat moo gën a gaaw ci fegal ñu lépp lu ñu ragal moo gën a gaaw ci ñoddal ñu lépp lu ñu bëgg ba waroon ko wuti loolu Sëriñ Tuubaa ko nee na lépp lu ngeen ragal bi di ko daw na ngeen ko dawee te tere suñu borom bi lépp lu ngeen bëgg wala ngeen xëyma ko war koo wuti dem leen wuti ko ci jëfe ndigali suñu borom yi mm-hmm. sëriñ bi nee na mi ngi nuy soññ ñu dàggewaat suñu pastif te yëkkatiwaat suñu yitte mu jëm ca kaw te ñu dox wuti suñu borom wuti ngërëmul suñu borom te jaarale ko nag ci Sëriñ Tuubaa mi xam ne moom la ñu doxale suñu digg suñu borom te Sëriñ moom moo ñu xamal ne képp koo xam ne sa pastif dëggu na si yitte kawe dara jooju seen lu mu kawe kawe mën nga ca àgg ci coobari suñ borom loolu lañ ko xam bu baax loolu jàllee sëriñ bi nee na mi ngi ñuy ñaax ñun njaboot gi ñu gën a taxaw bu baax a baax te gën a takku gën a doon wenn say bokk pas-pas bokk yéene di yëkkatee ndoo di tegandoo ba liggéey bu rëy bi nga xam ne suñu kilifa battale nañu ko ñu mën caa bay suñu waar ba àgg ci boo xam ne dana kawe njort lool hmm. loolu nag bu ko dee waxit ab soññee rek la waaye xam na ne ci loolu ngeen nekk mën na koo seere bu baax hmm. ba tax na mi ngi sant bu baax a baax ci taxawaayu màggal Daaru Salaam gii ñu génne ki démb rek te mooy liggéey bi nga xam ne moo ko fi njëkk a fekk mu koo teewee hmm. waaye cant googu nag dañ koy tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul am li tarixatil muridiya amal nañ ko cant gu rëy rëy rëy ndax ànd na ko ak ñun bu baax a baax ci bis bi sagal nañ ci teral nañ ci dër soo xam ne defoo nanu ci ay teraangaam ci ay taxawaayam ak ci eb teewaayu jëmmam ci tëdd ja loolu rëy la ci njabootu Daaru Salaam gépp gépp ñu ngi ko koy seereel te di ko sant te di xamal na daal duñ def loolu nekk ci ginnaawam ànd ak moom lu mu nekk ña nga ca lu mu nekkul nekkuñu ca mm-hmm. moom rek li ñuy déglu fu mu xam nañ ne foofu rek la waaye ñu ngi sant it nag mboolem bokk yi nga xam ne moom la ñu seqal yoon wi ak seq bi ñoom diine ji ak bokk soppee ak wëllëri yi ñoom ñëpp wuy woon nañu ci bis boobu bi nga xam ne bis bu ñu ñor la bis bu rëy ci ñun la amuñ lu dul moom waaye nag ñu ngi sant yit nag njabootu Daaru Salaam gi nga xam ne mooy ñoom ñooy moom sant na leen bu baax a baax xolam sedd na ci ñoom guyu ndax taxawaay màggal gi ku ne gis na ko ñëpp mën nañ koo seere bokk yëpp ak soppi yi ak wëllër yi ak taalibe yi ñoo àndandoo taawul ko seen bopp yoral ko seen bopp noppal ko ci lool ma nga xam ne ku ne xam ne ne dem na noo xam ne mucc na ayib lool mm. kon cant la gu rëy ci moom goo xam ne mu ngi leen koy seelal te xam na ne yëg na ko gis na ko xam na ne daal nangul ngeen ko jàpp ngeen ko jàppale ngeen ko seetaan leen ko ci leen mu ngi ñaan suñu borom nangul leen seenub liggéey te taxawal leen saaxiran baat baatinan bi ngeen àggali seen yéen yéen ñëpp loolu jàllee bala ma jeexal kàddu gi sëriñ bi nee na mi ngi sàkku ci mbooloo mi ñu ñaanal suñu waajur wi nga xam ne moo ñu dëdd barki démb rek di soxna Dama Mbàkke bintu Cheikh Seydou Muxtaar ñu fàttali ko it sëriñ Asu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Moustapha Ceytu suñu borom dolli leen leer dolli leen yërmande ak i ngërëm ci barkeb Sëriñ Tuubaa fasaari ca nag képp koo xam ne rek mbokk la wala mu mbokkum julli wala mi mbokkum taalibe sëñ baa ngi sant bu baax dañaan ñu yàgg fee dajeeg yéen yàgg ànd ak ñeen jataay bi ci ak mucc ak mucc ci musibay mucc ci balaay suñ borom fàggu ñuy xéewal yu baawaan may nawetub jàmm bu bari xéewal te néewi lor ci barkab Seex Xaddim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aaudu wasalaatu wasalaam ala sayyidil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xuddaamihi dawil mayamin allahu akbar kabiran azima walhamdulillahi hamdan kathira wa subhanallahi bukratan wa asila aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julli gi xanaa ñu jëfe ndigal rek waaye li ñuy wax ci xutba bi doy na sëkk ci bis bi li Cheikh Abdou Serigne Abdou Imam wax itam na sëkk waaye ndigalul jot li kàddul së kàddu sëñ bi dafa am doole lool ba nga xam ne man gisuma lu ma ko par doole di sëriñ Abo Mouhamed mii di wax ni ngi leen di nuyu yéen ñëpp ni ko Cheikh Abdou waxee di sant ñëpp di ñaanal ñëpp di leen seeral na tam maamam ju baax ja maam Cheikh bu mu seen toog fii la muy wax du ko weesu du ko jéggi li nga xam ne xutba bi ki ko doon jàng xam ne ke ku tedd ka ba léegi noonu koy toftale ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy way juróom bu tedd waatam sëriñ Moodu Maamu yàlla na suñu borom dolli leer yàlla bare bare bare lam fi daan digle moom rek la fiy digle lam fi daan tere rekk la fi tere ndax seeni jéego rek la topp kon nag ginnaaw ñi ko fi jiitu la lay topp seeni jéego kon mu ngi yeesalaat di soññ bokki taalibe yépp di soññ bokk yëpp ñu xam ne maam Cheikh Anta li mu am kenn amu ko ci Serigne Touba waaye li ko may de mooy njëkk a jox boppam Serigne Touba te dëggal ko te wéral ko muy pas-pas boo xam ne musta yolam mukk pas-pasam ci Serigne Touba lu ma am rek moo ko may kon nag naan gën di fedd di pas-pas boobu topp ci ginnaawam lu mu jàpp ñu jàpp ci lu mu song mu songale ko ko moom sëriñ abu muhammad mii ndax am na yërmande lool ci njaboot gi eh, màggalu ren gi ñu bari gis nañ ci lu baree baree bari ndax màggal gi ku bokk ci njaboot gi rek njaboot gi nag bu ko waxee njabootuk bokk gi ak njabootu taalib yi ngay wax ñëpp a ci jàpp commission yi ñu defoon li ñu waroon li ñu taxawaloon li ñu waroon liggéey lépp liggéey nañ ko kon nag sëriñ bi nee mu mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci màggal gi te ka jiitu di sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxaa waaye loolu teewul mbokk yépp yëpp gën kër desut ñëpp jàpp nañ ci ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax di sant mbokk yépp waa Touba waa Mbacke Xewar waa Mbusobe ñépp rek ñëpp teew nañ ñu doon jàng alxuraan bi mu ngi leen sant di leen xamal ne amul seen pay waaye yàlla am na pay yéene rek lay am lu mu def rek yéene la waaye suñu borom mi moom alxuraan ji ak Sëriñ Tuubaa mi ngi koy jàngal ak maam Cheikh ñoom am nañu fay yàlla ñu leen fay mu xam ne bis bii ñu ko xutba bi waxee rek bis la boo xam ne bisum mbég la Euh, euh, li ko tax a doon bisu mbég naqar woo xam ni aw naqar gënu koo tiis suñ borom tegoon ko sayyiduna Ibrahima ne ko mu rendi doomam Ismaahil ba mu rendee ba noppi gis xar mu mel ni xarum tabaski tëdd sayyiduna Ismaahil taxaw ca ginnaaw wax alhamdulilahi rabbil alamina kon bisu mbégte la ci Ibrahima ak way juróom bu jigéen ak way juróom bu góor ak mboolem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom bisu mbégte nag defe naa ne ñi nga xam ne ñii yàlla dogal na seen kàttan àggul ci ñu mën a am tabaski dana rafet lool eh, ñi am tabaski eh, sédd leen luñ mën a bokkee ci luñ mën a bokkee ci mbég mi sédd leen luñ mën a bokk ci mbég mi te sëriñ bi nee na màggal gu Daaru Salaam gi nii ñu ko nosoo ñu wéyal ko mbooloo mi bañ a tas lépp lu xew mbooloo moomu àndaat nekk benn nekk jenn jëm taxaw ci itte joojee ndax sëñ bi kat moom amul ittey boppam ittey sëriñ Touba am màggalu Touba màggalu Daaru Salaam ittey sëriñ Touba la ittey maam Cheikh Anta la ittey sëriñ Mour Mamoun la kon nag noonu nu laxasaayoo woon ànd taxaw ci ci bis boobu nan ànd taxaw laxasaayuwaat lépp doo xam ne lii mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy sog mi ngi sant ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi ñëw ci administration bi ak ci waa presse bi euh, seen taxawaay rafet na ci lool lépp lu ñu war a yëgle yëgle nañ ko sant njaboot gi ci ité yi nga xam ne am nañ ko ci fépp fuñ soxla baas ñu taxawal fa baas eh, loola buñ koy def duñ fàtte sëriñ Abibu ak sëriñ Abdou Karim ak mboolem ñi nga xam ne rek jàppale nañ ko ci bis bi kon suñ baa ngi sant ñëpp ñu xam ne ne bis bi eh, noo ngi ñaan bis bi dellu siwaat nu toogaat jataay bi te kenn bañ a manqué te sunu borom saafara jàngoro yi sunu borom saafara jàngoro yi xol yi ak jàngoro yi yaram yi ndax sunu borom mooy saafara yëpp waaye sëñ bi woote ñu ñëw wuy si loolu rek mën naa fa jàngoro yi kon nag bu sëñ bi wooteetee rek eh, nan njëkkante waaw ku njëkk a ñëw rek. da nga am loo xam ne lii da nga ko rawee ka nga fi jiitu ndax ma di fas naa yéene bu suñ bu wootee te kenn du ma fi jiitu kon nag nu bokk ñëpp ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér waaye ñaanal sëriñ Abu Muhammad mi di jëmmi sëriñ Mudu Maamun ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér te yéeneen yëpp mu àggale ko yéenam yëpp mu àggale ko nu ànd kook moom yàlla mën na ko yonent bi mën na ko Sëriñ Tuubaa mën na ko maam Cheikh Anta mën na ko Sëriñ Moodu Maamun mën na ko kon nag yàlla nañ ko jàppale ba yéenam yëpp ak ni mu ko bëggee ba teg yee fi boppam mm. wassalaamu aleykum maa si nangu ñaan and, um, um